Amina Sale daal dina yëkkati ay kàddu tontu ki nga xam ne moo nekkoon borom këram di Serigne Fallou Mbacké Abi gannaaw seen mariage bi nga xam ne benn weer rek la def Amina Sale daal di tas ñoom ñaar ku ne dem waaye fi mu nekk nii Serigne Fallou Mbacké Abi nekkoon borom këram yëkkati na ay kàddu wax ci ki nga xamante ni moom moo nekkoon soxnaam di Amina Sale nee na sax mariage boobule Amina Sale ba ñu ko gisee mu takk ay or ci bopp beeg loxo yeeg yaram bi yëpp nee na lu ci bëri ay faux maanaam ay përëm la. li ci nekkoon or bariwul moom de borom këram moom moo wax noonu ki nekkoon borom këram mbokk di Serigne Fallou Mbacke abi wax na tamit leneen ne kii di Amina Sale dafa def chirurgie maanaam yaram bi daf ko soppi woon kon euh, gannaaw bi nga xam ne wax na loolu moom Amina Sale daal dina yëkkati ay kàddu gannaaw bi ko euh, Sénégal ak it euh, waa kawteef woo téléphone nee na du ci yëkkati ay kàddu yu bari moom daal nee na tontu bi bu jotee dana tontu te fi mu nekk nii def na plainte te ma nga ca loxoy yoon mi ngi bàyyi yoon def liggéeyam waaye nee na du yàgg dara dina tontu ci lépp loo xamante ki nekkoon borom këram waxal na ko ko di Serigne Fallou Mbacké Abe nee na daal dina indi ay tontu te dina wax ak moom te dina dégg la mu koy wax. waaye Amina Sale nee na jamono jii du def benn interview te tontu ji mu nar tontu daf koy def ci Snapchat am. en plus tamit dina def benn communiqué nee na daal noonu lay tontoo ki nga xam ne moo nekkoon borom këram di Serigne Fallou Mbacké abi tuumaal ko waaye tamit euh, ca la ñu wax rek mooy kii nga xamante ni moom mooy Serigne bi nee nañu waaye juróom bu jigéen sax fi mu nekk nii mariage ba mu tasee yaram bi neexatul te fi mu nekk nii stress moo ko jàpp waaye tamit am na lu bari loo xam ñu ngi koy tuumaal moom mi la Serigne bi kon kaw kawteef incha allahu rabi dañ ci dikkaat ci yeneen i mbóot